yi nga xamante ne yéen ñuy bàyyi euh, xel fii ci Sunugal 24 ñoo ngi fii ci àll centenaire bi comme ni ngeen ko xamee njiitu réew mi Macky sàll mooy ñëw noonu président Macky Sall mooy ñëw noonu voilà te nag nekk 63e anniversaire nga xamante ne Sénégal euh, jëlee na ko moom na boppam di fête de l'indépendance Sall ngi noonu voilà mi ngi noonu njiitu réew mi Macky Sall. mu ngi noonu du nuyu wi ki nga xamante ne moo di waa l'armée bi njiitu réew mi Macky sàll euh, voilà comme ni ngeen ko gisee ñëpp a ngi jug ñëpp a ngi tàcc ba tax euh, moom mu ñëw euh, di nuyu ñi nga xamante ne ñoo di suñu force de l'ordre ñoom ñi nga xamante ne bu réew mi dalee bu jàmm amee ñoom la ñooy dem ci guerre yi tax jàmm ak salaam sax fi ba tax moom njiitu réew mi Macky sàll romb na daal ba nuyu leen. voilà mi ngi noonu mu ngi jubali fale ca kaw ngir nuyu leen ñoom ñëpp di leen fàttali nag thème ren bi nag mooy euh, force de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles. mi Macky Sall daanaka ba mu nuyoo ñi nga xamante ne ñoo di euh, force de force de défense et de sécurité yi mi ngi dëpp ngir dellu fa nga xamante ne moo di podium bi ngir euh, défilé 4 avril bu 2023 bi mën a tàmbali. comme ni ñu leen ko doon waxee léegi ku ne xam ne ne force de défense et de sécurité ginnaaw bu réew mi amee jàmm ñoom la ndax ñooy taxaw ci frontière ba di jàmmaarloo lépp lu fi bëgg a dugg ñi nga xamante ne ñoo di takk der également ñooy assurer sécurité réew mi ba tax ñu nekk ñoo xam ne daal ñu ñu war a delloo njukkal la ñu ñu war a joxaat cër la te bàyyi leen xel njiitu réew maa ngi noonu di euh, dëpp voilà di nuyu askan wi di saafoteeg ñi nga xamante ne ñoo ñëw ci défilé bi maire bu Médina Bamba Fall mi ngi noonu taxaw ci kanam ndax moom na ku ne xam ne na tey ci goxam lañ ko fekk si ci goxam la mbir mi di doxee ba tax mu ngi nii ci kanam di accueillir ki nga xamante ne moo di euh, président de la république euh, Macky Sall voilà comme ni ngeen ko gisee oto baa ngi noonu mu ngi noonu di romb daanaka militant yaa ngi yuuxu di ko bàyyi xel ba ngay saafarte di nuyu voilà di euh, tàllal loxo ñi nga xamante ne ñoo di militant yi comme ni ngeen ko gisee noonu mu ngi noonu convoi baa ngi noonu di dem te nekk 63e anniversaire bu Sénégal moome woon boppam depuis 1960 ba suñu jonu yàlla tey mu xaw a nekk nag contexte bu particulier contexte boo xamante ne tombé naag dëkk bi xaw a yëngu ci mbirum tension politique yi waaye daal mën nañ ne fii lépp jaar na yoon naam sax ñi nga xamante ne ñoo di yeewi askan wi président de la république yónnee woon na leen invitation waaye euh, ñoom daal dañoo mujj décliné boobu la invitation ndax daal nee nañu daal ñoo xamante ne du ñu xool du leen di xoqata di leen def lu métti ba pare daal bëgg leen a invité ci li nga xamante ne mooy di fedd de l'indépendance voilà mi ngi noonu. escorte bu doy waar andi ki nga xam ne moom mooy njiital réew mi monsieur le président de la république Macky Sall le père de la nation waaye le chef suprême des armées mi ngi noonu moom la ñuy gis noonu muy dugg si ak mi noonu nga xam ne moom mooy le président de la république dugg si na de son avec une très forte benn escorte bu bare bare mi macha allah image rafet nañu mi ngi noonu oto boobu ci digg bi moo def ki nga xam ne moom président de la république du Sénégal Macky Sall daal dinay agsi fii ci place de la nation ci li nga xamante ne moom mooy 63e anniversaire de l'indépendance du Sénégal mi ngi noonu. de la république Macky Sall moo agsi noonu fi nga xam ne moom mooy place de la nation chef suprême de armées. le père de la nation ñu agsi fii si li nga xam ne moom mooy dix heures une minute ñu déglu hymne national nationale du Sénégal mhm. le président de la République, le père de la nation, chef suprême des armées, son excellence euh, Macky Sall mi ngi ci li nga xamante ne moom place de la nation Son Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, va passer en revue les troupes de commandement de Monsieur le de des armées. voilà mi ngi noonu dafay daal di def li nga xam ne mooy tuuru troupe yi saafanteeg ñi nga xam ne tey ñoom ñoo war a défilé fii saafanteeg ñi nga xam ne moom mooy armée bi dans ensemble. safonteeg li nga xam ne moom mooy public bi ci kaw oto armée bi waaye tamit ki nga xam ne moom mooy chef d'état-major des armées moo ko fa yéenee gunge ñu ànd ci nuyoo boobu le président de la république son excellence euh, Macky Sall mi ngi saafanteeg li nga xam ne moom mooy l'armée nationale balaa muy daal di dugg si ngir jël place ci tribune officielle bi ñu daal di door li nga xam ne mooy défilé bi mu ngi noonu di nuyoo. dafay def le tour di nuyoo mi ngi ànd ak ki nga xam ne moom mooy chef d'état-major des armées moom la àndal ci nuyoo boobu ñu ànd di nuyoo. yéen a ngi koy gis noon ci image yi. troisième anniversaire de l'indépendance du Sénégal. tey di bésu 4 avril di bés bi nga xam ne mi ngi marqué bi Sénégal moomee boppam bu boobaak léegi am na juróom-benn fukki at ak ñett daanaka bu doon nit ñu ne muskal mu doon na mukalaf waaye tamit eh, am na ak njaboot ñu ne bu doon nit ñu ne fi mu toll nii bi jaaw na kaw bi jaaw na fu ne ren nag ñu ngi jël thème bi choisir mooy force de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles ressources naturelles nag bu ngeen ko déggee mooy hydrique végétal animal énergétique mooy li nga xamante ne dafa am solo lool lool ndax dafay permettre ñu bâtir li nga xam ne mooy développement économique waaye tam dafa nekk loo xam ne dafay satisfaire li nga xam ne moom mooy euh, les besoins des populations looloo waral ren ñu tànn li nga xam ne moom mooy thème boobule am na solo lool lool ci kanam tuuti dinañ ci dugg ak yéen expliquer leen bu baax a baax lan mooy sensu thème boobu bu ñu commencé défilé bi ba dugg ci biir dinañ leen wax incha allah lan mooy sensu thème boobu. soixante bi Sénégal moomee boppam ak léegi. mi ngi noonu ànd ak chef d'état-major des armées. doon def ay salutation ci troupe yi doon nuyu ñi nga xam ne ñoom ñooy lii bi ñoom ñooy l'ensemble de l'armée nationale mi mi ngi noonu di ñëw fas yéene agsi si li nga xam ne moom mooy euh, tribune officielle bi ngir ñu tàmbali li nga xam ne moom mooy cent soixante-troisième défilé bi commémoré soixante-troisième anniversaire de l'indépendance du Sénégal dañu ñëwaat tuuti rek ci li nga xam ne mooy thème bi force de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles ressources naturelles nag bu ngeen ko déggee mooy nekk hydrique végétale animale et énergétique dafay permettre li nga xam ne dafay tax ñu mën a satisfaire les populations d'une manière générale waaye tamit dafa nekk socle boo xam ne dafay permettre ñu bâtir li nga xam ne mooy développement économique te ressources naturelles yooyu dañoo nekk au de nombreux enjeux notamment économiques environnementaux ou sécuritaire Sénégal nag dafa daal di euh, safoo faale li nga xam ne moom mooy sauvegarde de ces diverses sources primaires de matière et d'énergie figure au rang de priorité li nga xam ne moo ëmb force de défense et de sécurité dans sa globalité moo xam douane la moo xam police la moo xam sapeur pompier la moo xam gendarmerie la moo xam armée la lépp li nga xamante ne bokk na ci force de défense et de sécurité dafa nekk loo xam ne euh, dafay daal di contribuer à la mise en œuvre des politiques de l'État en la matière maanaam ci wàllum li nga xam ne mooy ressource naturelle euh, li nga xam ne moom mooy direction fos aux et conservation des sols lañ lañ leen euh, ak ay parcs nationaux yi nga xam ne ñoo dañuy constituer des sentinelles de premier rang ñoom loolu lañ leen dag jagleel dafay œuvrer si li nga xamante ne mooy la protection des écosystèmes et lutte contre les diverses formes de criminalité pouvant affecter les ressources relevant ñi nga xam ne ñoom ñooy douane euh, ñoom dañuy lutter li nga contre li nga xam ne mooy le trafic d'espèces d'espèces protégées et l'introduction des produits nocifs dangereux nga xam ne mooy la brigade nationale des sapeurs-pompiers ñoom dafay caractériser wu par une grande diversité de missions qui lui confère une place centrale Son dans la préservation des ressources naturelles nga xam ne mooy la police nationale et la gendarmerie ñoom arsenal juridique relatif aux polices de la pêche de la chasse de la protection des bois et si loolu la ñuy euh, basé wu def li nga xam ne moom mooy protection ressources naturelles yooyu Euh, du côté des armées ñoom seen mission fondamentale moom mooy assurer la défense de l'intégrité du territoire national ainsi la sécurité des populations et de leurs biens donc euh, ressources naturelles yooyu nga xamante ne suñu force de défense et de sécurité yi ñoom dañu koy euh, aar di ko sàmm fu ñu toll donc lii nii dafay wone rek ne li nga xam ne moom mooy force de défense et de sécurité yi dañoo par l'information et des relations publiques des armées illustrant le thème retenu, suivi d'un bref élément sur la montée en puissance de la marine nationale. Ensuite, il sera procédé devant le front des troupes à la remise d'un signe de décoration débutera le défilé civil exécuté par des majorettes, des établissements scolaires et écoles de formation, des mouvements de jeunesse

ayca mi ngi noonu. excellence nga xam ne moom mooy le couple royal monsieur le président de la république honorable invité <laughs> mesdames le président Macky Sall. Euh, nous allons à présent euh, assister à la projection d'un film réalisé par la direction de euh, l'information et des relations publiques des armées illustrant le thème retenu suivi d'un bref élément sur la montée en puissance de l'indépendance du Sénégal bi ñu moomee suñu bopp ak léegi mu ngi toll ci ans. le couple royal nag mi ngi noonu toog première dame gis nañ ko mu def blum bu baax toog ci ki nga xam ne toog ci côté ki nga xam ne moom mooy grâce à ces bus électriques le confort la sécurité la régularité la police nationale, nous avons la commune de Moussiké, la commune dirigée par M. Mohamed Kouliba, la commune avec l'ensemble des écoles primaires qui font le politique scolaire et le politique pour promouvoir l'excellence les disciplinaires de chaque école ont été choisis en tenant compte de la parité. Il s'agit des écoles primaires Amadou Diallo Aslan, Ebu Bey, Aslan Sayın. saltige nag yi Yoff plus des frais qui de 1432 date d'arrivée de dans la presqu'île jusqu'en 1548 de l'installation du village L'actuel de Yoff est M. Seydina Issa Laye Place maintenant à la ville de Pikine. la ville de Pikine participe comme à l'accoutumée au défilé avec les meilleurs élèves qui viennent du SEM Lamine Niass Pikine 9 IFCS Rufisque Ouest Place maintenant au Saint-Martin Luther King créé en 1972 l'établissement le nom de Sainte-Fille c'est en 1987 qu'il a été baptisé Saint-Martin Luther King en il a été délocalisé à Jakarta depuis 2016. Les résultats encore sont de 88,8% de réussite et 95% de passage en classe supérieure. Le SEM a remporté au concours Miss Mathématiques Sciences niveau académique en 2018 entre autres personnalités, le ministre Manuel Moïse et Anta

civique national. Le service civique national a été par la loi du avril Il vise la construction d'une conscience nationale et par une formation civique et favorise l'apprentissage des métiers en de l'insertion socio-professionnelle des jeunes par le volontariat dans divers domaines. Il est rattaché au ministère de la Jeunesse de l'Entrepreneuriat et de l'emploi avec comme stratégie mobilisée autour de la promotion du civisme, du volontariat aux fins d'apprendre au métier en vue de l'insertion sociale. Le service, le service civique par le colonel Cheikh Madjan. Place maintenant à la Croix-Rouge sénégalaise. La Croix-Rouge sénégalaise a été reconnue comme une association en 2013 le chef de l'État a créé l'agence d'assistance à la sécurité des proximités. Cette agence, dirigée par le docteur Papa Khalignon depuis le 5 août 2013, est placée sous la tutelle technique du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et la tutelle financière du ministère de l'Économie, des Finances et du prévention, assistance, secours. L'agence participe en relation avec la police et la gendarmerie à la mise d'une politique sécuritaire de proximité. Place maintenant à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Des anciens combattants et victimes de guerre qui, à l'accoutumée, rappellent à la jeunesse la nécessité de préserver nos valeurs de sacrifice, de don de soi, d'abnégation et de courage. L'Afrique, dans sa quête de renaissance, a chef de Renaissance a besoin de s'enraciner dans des valeurs fortes incarnées par ses héros, précurseurs de l'indépendance de nos États, acteurs essentiels de la Renaissance des Africains. suite la police nationale qui animé les défilés civils et sous les de notre André Matatine, chef de musique. la coopération avec euh, l'Allemagne. La section, et c'est déjà un de gendarmerie, sera dotée d'une unité canine dans un court terme. Les chiens sont transportés dans des véhicules spéciaux dotés d'équipements de couchage, de groupes électrogènes et d'une réserve en eau de pouvant assurer une autonomie opérationnelle organisée dans la gestion de l'avoir accueilli des personnels militaires et civils nationaux comme étrangers désireux d'être formés à la conduite automobile, motocyclette ou à la sécurité routière. Sa mission consiste à promouvoir la sécurité des personnes et des les axes de protéger les infrastructures et moyens de transport et de limiter. le détachement de la sécurité routière, nous apercevons maintenant la batterie lance-roquettes multiples. Le système d'armes lance-roquettes multiples est destiné à délivrer des tirs sur des objectifs peu durcis et surfaciques, constituant l'ossature de l'artillerie d'action d'ensemble, leur offre la possibilité de saturer brutalement une zone et de surcroît d'obtenir un effet psychologique important. La batterie est composée entre autres de deux véhicules légers blindés avec un système d'acquisition de dernière génération. Six lanceurs qui composent les sections de tir, d'autres véhicules de chargement, de dépannage, de transmission et d'un poste de commandement et de tir. Sa devise est TAC Je rappelle que le premier bataillon d'artillerie et sous les ordres du lieutenant-colonel Hassan Bachi. Derrière le premier bataillon d'artillerie, nous avons le détachement du génie. ce détachement, ses missions quotidiennes, au plan technique, par la lutte contre les émissions et déversements de polluants et autres substances nocives à l'environnement à partir des visites de prévention et de sécurité au niveau des établissements insalubres et incommodes, dont un total de 400 sorties encore dans les mémoires. En outre, dans le cadre de la protection de l'environnement marin, en coordination avec la ASMAR, la brigade participe au plan pollution maritime. Brigade nationale des sapeurs-pompiers, de nouvelles capacités d'intervention en la matière. En définitive, la brigade nationale des sapeurs-pompiers demeure un acteur majeur. Le choix secours aux populations et la célérité dans le traitement des sollicitations des populations. sécurité publique les ordres de l'adjudant Tcherno John. et Iveco sont engagés dans les opérations de maintien et rétablissement de l'ordre public ainsi que les missions de sécurité. véhicules et de la brigade d'intervention polyvalente sont des engins blindés de transport de troupes engagés dans les manifestations hostiles. Il faut ajouter que, soucieuse de l'environnement, la police s'est dotée de véhicules hybrides qui utilisent deux sources d'énergie, le carburant et le gaz. Les émissions de CO2 sont ainsi réduites avec ce type de voiture. maintenant au détachement de la direction générale de l'administration pénitentiaire aux

150 ressortissants des pays amis et effectif, cet effectif global est composé de 538 médecins, 65 pharmaciens, 47 chirurgiens dentistes et 26 vétérinaires. 12 personnalités sénégalaises et étrangères sont issues de santé passe maintenant à l'École nationale des officiers d'active aux ordres du colonel Yahya Diop. Cet établissement d'enseignement militaire supérieur qui a pour de former en deux ans des officiers d'active destinés à l'encadrement des armées, de la gendarmerie nationale et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers et la pour secondaire

L'école nationale des sous-officiers de Kaolack a été créée le 1er septembre et installée au camp Semou Dimit de Kaolack. Dans le cadre de sa montée en puissance et pour répondre aux besoins des armées, elle a été transférée le 19 septembre à Koutal, située à 10 au sud de la ville de Kaolack. La 48 promotion en deuxième année

Place maintenant à l'écho des officiers de la gendarmerie nationale aux ordres lieutenant-colonel Alexandre Duma John. Créé en l'école des officiers de la gendarmerie nationale, initialement installée à Wakam, à la caserne générale Mambonamafal, a été délocalisée à Fatigue en l'école uh, des sous-officiers de la gendarmerie nationale est un établissement d'enseignement militaire et professionnel destiné à fournir à la gendarmerie nationale un personnel sous-officier qualifié. Elle assure la formation initiale des gendarmes et le perfectionnement des gradés. Elle est actuellement commandée par le lieutenant-colonel Alexandre Dumadjon. Actuellement, l'école des sourciers à la chaîne 470 à Fatick et 500 au centre Malicounda. Le stage la promotion des élèves Bradel délocalisé à l'école de l'armée de terre aux ordres du colonel Babacar Tcham.

l'école l'armée de l'air accueille depuis 2017 des stagiaires issus des armées de l'air africaines sœurs, ce qui constitue une véritable de confiance de part des pays amis. Excellences, honorables invités, Mesdames, Messieurs, nous allons assister au défilé à pied du détachement des formations paramilitaires et militaires à quatre vagues animées par le bataillon de la musique des forces armées placé sous les ordres du chef d'escadron Ibrahima Chibert Barro. Ce détachement du bataillon de la musique des forces armées est aux ordres du sous-lieutenant Jean-Noël Bassel. à l'image des premiers panthéons qui ont constitué de la musique principale des forces armées sénégalaises. Constitué à l'époque vraiment réverencé, participe aux opérations militaires aux côtés dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire. est une unité de la gendarmerie mobile, respectivement implantée à Wakam, à Thiès avant d'être délocalisée en Le centre a connu une réelle montée en puissance en janvier 2023. Il permet de centraliser l'institution des gendarmes auxiliaires avec une formation initiale de combattants et une colonel Tafsir Tamdiaï. Unité de réserve générale, le bataillon de parachutistes, dont la devise est Tamba Lady, est une formation organisée, entraînée et équipée en vue d'être à terre au sein d'un dispositif ennemi par largage ou par posée pour y mener le combat et son arrivée au sol. unité de réserve de l'armée sénégalaise été créée en sous l'appellation Il est implanté au camp de Thiaroye, devenu camp lieutenant Amadou Guindor Fall depuis le septembre 2009. Il est placé sous le commandement juste derrière le bataillon de parachutistes place au détachement du bataillon de commando aux autres lieutenants-colonels Abdou Karim La troupe que vous voyez défiler devant vous est le bataillon de commando Les Gold Fit. de réserve Sénégal, le bataillon de commando, est composé d'hommes aguerris par une riche et longue expérience acquise dans plusieurs théâtres d'opération comme à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Il a toujours répondu efficacement à sa mission générale de défense grâce à son potentiel opérationnel renforcé par un esprit de corps légendaire, fruit d'un long processus de développement. Ce bataillon a été créé sous le nom le groupement commando le 1er février 1963 avait composante un peloton et deux compagnies de combat. social terre air mer cet attachement est composé des forces spéciales terre air mer dans leur uniforme spécifique unité d'élite bénéficiant d'un entraînement soutenu et d'un équipement performant elles sont en adéquation avec les cadres d'emploi la montée en puissance par le commandement se traduit par la création de forces spéciales dans les trois armées dernière, le détachement des forces spéciales Terre Sambou, le 12 bataillon d'instruction installé au camp des Momargari de Saint-Louis, est un creuset de formation initiale des jeunes Sénégalais, garçons comme filles, destinés aux armées, à la gendarmerie nationale et la brigade nationale de sapeurs-pompiers. Le 12 bataillon d'instruction est aussi chargé d'assurer la formation de qualification des gradés militaires, la formation initiale de combattants spécial au profit des élèves médecins ainsi que le des élèves poussiers d'actifs et des, et des élèves à l'intuition du commandement, est en train de connaître des mutations profondes. Celles-ci sont particulièrement visibles dans les domaines de l'équipement et de la formation. Plusieurs projets d'acquisition de nouveaux appareils et de moyens de sécurisation de notre espace aérien sont en cours de finalisation. Cette volonté des autorités de doter l'armée de les moyens nécessaires pour exécuter aux côtés des autres composants des armées ces missions républicaines. Nous avons le détachement de la marine nationale aux ordres du de corvette Amadou Diallo. La marine nationale est le bras armé de l'État Elle mène des missions de défense ainsi que des opérations. de sécurisation des plateformes et des infrastructures d'exploitation d'hydrocarbures offshore, de lutte contre les pratiques l'espace fluo-maritime, de police de pêche, de lutte contre la pollution marine, de lutte contre l'émigration clandestine et de recherche et de sauvetage en mer. Yes, yes. Commandant Martial Diop.

groupement de cavalerie montée de la gendarmerie nationale aux ordres du capitaine Alioune Mar. Cette unité mobile de cavalerie montée est placée sous les ordres du capitaine Alioune Mar. Elle assure les escortes de monsieur le président de la République et de hautes personnalités en visite aux cavaleries en héritier des citoyens sénégalais et de l'escadron monté de la gendarmerie nationale de l'ordre des manifestations sportives avec le harnachement complet de type foncé et pour la première fois avec un détachement maintien de l'ordre. Mesdames, Messieurs, Monsieur le colonel Mbaye commandant la zone militaire numéro et commandant de...